waaw ginnaaw bi sant yàlla jul si Muhammad sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant dëkkandoo yi bu baax di leen jéegul di leen baalu àq ndax laamu dafa métti dafa bari coono xaw ma waaw di sant sama doom baa yëpp waaw rawatina Cheikh Boutique waa Cheikh moom moo fayam ko depuis mbapat ba tey muy sonn si man ko sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla nga defal jàmm bi may xaw di sant suñu waa koñ bu baax a baax xaw ma ndax suñu waa koñ mu amee combat dañ siy jàpp bu baax a baax na waa Pekes xaw ma di sant ñëpp waa naar ga wa koñ ngelaw waa wa waa cité carrière bàyyi ma kenn xaw ma rawatina sama booyar jakataay ñu siy di wër di ket ak yooyu leen sant bu baax leen gërëm. ñu desiwaat ci combat bi naka nga ko dundee bi nga xam nga waajtaayu combat metti na jafe dëgg la ni nga ko waxee bari na ci jàpp di doomi Kajoor na waa Pekes mais naka nga dundee combat bi. waa làmb moom xam nga dafa metti ndax làmbu waajtaayu dafa metti trop. làmbu taxaw bëri moo si gën a yomb. Hmm. waaw ndax làmbu entraînement yi daal metti xam nga te fi Kajoor xam nga te Kajoor xam nga mooy matawul boole ci waaw mooy xam nga taxawul xam nga moo tax daal combat bi métti woon na trop waaye nag dañ koy sant yàlla quoi. Hmm. waaw lan ngay wax autorité yi autorité locale laay wax sax muy mairie beeg ñeneen ñi ak ñi la mën a jàppale ak bonne volonté yi parce que boo nekkee doomu kadior di fas yéene taxawal làmb fii ci kadior bu ñu tudd làmb di la tudd il faut jàppale am ndax mooy matu ko ni nga ko waxee mais am na ay defkat lu baax wala ñi xam ne ñooy administration eh, kii collectivité locale bi di mairie bi ak ñeneen ñoo xam ne ay nit leen di personne yoo xam ne ñu ngi Kajoor ngir taxaw lu jàppale ba xam ne di nga mën a nekk champion waa autorité yi moom dañuy sant ku mel ni Serigne Diouf rek ndax Serigne Diouf oto yëpp moom moo ko fay xam wax dëgg yàlla xam nga Serigne Diouf doon nit ku baax Serigne Diouf moo ko xamee léegi du matee un la yam xam nga mu ñëw daal sa oto yi jàpp ñu comme rakk ko xam ne ñoo bokk PGF te ñun du demee Dakar drapeau PGF la ñu yëkkati nii mm. xaw moom lañu jële fi yóbbu ko mm. xaw moo tax nag moom loolu la xam moo tax mu jàpp lu mel ni sëñ moo dem jàpp si combat bi mm. xam nga ku mel ni Malick Diop sama sama doom ndey sama DG moom itam jàpp na si combat moom moo njëkk a jàpp si combat Malick Diop di ko di ko gërëm. ko ñaanal ko. bi mooy combat nga ko Pekes wala. waaw bi mooy sa premier combat boo préparé Pekes. waaw yàlla def nga am ci ndam. li sa kanam lan lay doon bi li sa kanam ñoom ñi nga xam ne ñoo war ak man ñoom ñoo war a ñëw ñu ndax man daa fu ma bëgg dem te te fi bëgg dem ay wax ko man jëf moo fa yow man dama booy xool combat yi nga xam ne da naan saa combat yi du si génn combat yooyu laa soxla. Hmm. comme combat bi paase ndax bari woon dañ ne woon combat bi du ma si génn. Hmm. gis nañ combat bi mobilisation bi macha allah parce que bari woon nañ ni trop loolu PKS yëpp demoon nañ. waaw di sant waa PKS bu baax ndax waa PKS jeunesse bi yëpp génn nañ jàpp si. même oto yi sax war hmm. ko génn na waaye oto yi motu woon ñun ku ñu jàppale leen jàppale si oto yi. bi bëgg nañoo dem. tey am nañ yéene bëgg dem waaye oto moom motul bu ñuy jàppale dañuy jàppale si oto yi. Hmm. ci wàllu entraînement bi des na jàpp ndax bu fekkee fi ngay waajee xaj na jumtuwaay yi fi war a am amu fi mais ñu jàppale la rek ngir nga am yenn jumtuwaay yu mu ndaw ndaw ngir mën a parce que bu koy defee Dakar wala nga koy defee bari mais bu dee xaj na fii la mën nañ ko defee fii mais am na yoo xam ne du ñàkk nga am ko. waaw man du ma amee combat dem entraîner ji combat bi desee 15 jours si laa bëgg a ñëw Pekes waaj ànd ak sama booy xam mm. ah nga mais entraînement bi da koy defee ci entraînement parce que yi am foofu amul fii quoi waaw entraînement fële ak fi bokkul mm. waaw te combat bi amaan ni mois de novembre bi dama ko bëgg a dem Gambie daal ah, na combat kan nga war a dajal non amaguma amaguma xamu adversaire bi quoi mais jàppal na la daal la bis jàppal adversaire mm. waaye promoteur bi daal moom jox na la waaw novembre am naa yaqin dinaa si avance bi di nga bëre. nga bëgg a dem daal. waaw laa bëgg a dem waaj ko desee 15 jours la laay doog a ñëw. ñëw Pekes. xam nga ndax làmb léegi daa dépassé yéen làmb foog nga yokk doole bu baax a baax. doo bëggee hmm. egg fi nga bëgg a yegg. di doole di sëriñ mënut a ñàkk mystique bi yëpp. waaw ay sëriñ ak la. la yàlla ah. defee nga am ndox ndox lu bëre nii. Ah. xam nga ak bi nii. dañuy wax dëgg ragalun dara. Hmm. waaw ñun moom bu ñu xoolee gis waa Pekes ñun ragalun dara. Hmm. te foo da ngaa doon lu bëri wala da ko jàng rek. non bëre ma wax dëgg yàlla a am naa sama benn papa sama magu papa. Hmm. Baye Baba Seck te mu doon chef de village. Hmm. moom mbër la woon. mbër la woon kon daal mbër noonu la ci yow. waaw dama ko doon. Hmm. waaw seen famille yaa ci bëri. famille man rek maa siy bëri. lan mooy sa maanaam ambition ëllëg lan fan nga jëm. sama ambition ëllëg leen la rek dem jëli roi des arènes indil waa Kajoor loolu li am mosuñu koo am. man loolu sama gëm-gëm te loolu laay yeewu. mais sa génération daal amoo ko ci tiit ko man samay morom ragal moom ma day wali ma la man damay xool mbari gën a tàng du ma sañoon man mbëri gën a tàng lan lan may jox man combat bu yomb bëgguma ko làmb moom doo si duggee di xool yomb rek bàyyi ñu dee si waat rek ci kàddu cant yi fu ñu tëjee foofu rek mooy ñi nga xam ni taxaw na jàppale na wala boo amee loo ci dolli rek sawaay man chaque jour dama koy wax gars yi xam nga gars yi dañ naan ay géejawaay laa dëkk Pikine laa dëkk ak Parcelles man Pekes laa dëkk barke Sëñ Fallou hmm. te guddi guddi Pékesse la fii la ñuy déparé dem bëre daan ñibisiwaat ñun ñun lépp lu bégal waa Pékesse rek si la ñuy dox si la ñuy wax ku si nekk fa nga dëkk daal fa nga waaw xam ñun amuñu loolu Pékesse États-Unis sax duñ fa nekkoon ñun Pékesse lañ dëkk hmm. bi lañ dëkk amuñu loolu moom par hmm. sëñ Fall te kuñ siy jàppale nga jàppale ci te yàlla tax hmm. képp kuy doomu Pékesse nag bëgg a Pékesse bu amee nga ñëw jàpp def sa doole ñun loolu rek la ñuy ñaan par sëñ Bamba tàllal loxo ñëpp daal bàyyiwoo ñu koy sant bu baax a baax xama Serigne Diouf jàpp na si combat bu baax a baax di ko ñaanal li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal mm. sant di sant sëñ moo dem mm. sëñ moo dem jàpp na si combat bu baax yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko defal jaamu di sant Malick Diop mm. sama doom ndey sama mag la moom moo njëkk a jàpp si combat bi xam nga papay Bamba mu ndaw yàlla na ko yàlla defal jaamu xam nga di sant sama mag Cheikh moom su may bëri birig bi lay dem Dakar xam nga loolu yombul. Hmm. di ko ñaan yàlla nga yàlla defal jàmm di sant sama doom baay yëpp gis naa taxawaay bi rafet na. Hmm. bilaahi di sant ñëpp bàyyi ma kenn di sant sama gars yi borom jakarta maa ni. Hmm. bilaahi ñoom moom bi combat bi taxawee ba tey xam nga chaque jour ñu ngi siy jàpp kan dem si diw ñu dem si di sant bu baax di sant jeunesse PKS bi bàyyi ma kenn xam nga di sant waa Gandigaal waa côté côté Mbour Mbour. di leen sant bu baax a baax ñoom chaque jour xam nga du may bëri xam nga fay leen jógee ñëw xam leen sant bu baax a baax leen gërëm. xam nga di wax adversaire yi ñi ma war a bëreel nee na ñu ñëw ñu bëre man daa am foo bëgg a dem si laamu hmm. man ay comédie nekkuma man du ma ay comédie du ma nii man daa am foo mën bër laa daa am a dem si laamu hmm. waaw c'est gërëm ku si mel ne di gërëm waa Taïba hmm. xam nga di gërëm waa Saate di gërëm waa waa di gërëm waa fii altu altu ci la di di gërëm ñi ma doon jàppale si combat combat bi ñu si jàpp bari xam di sant père fii père Serigne père Omar ka dëkk jéemu hmm. xam di sant waa Gadiyal waa waaye waa ci Njaarga hmm. ak waa fii hmm. dëkk waaye di sant ñëpp ñu doon jàpp si combat bi bari na wax dëgg yàlla ndax man doomu doomu Kajoor laa doomu Pekes laa xam di sant si jàpp ñëpp képp ku si dugal loxo maa ngi lay sant di la gërëm. Mm-hmm. xam nga la jox sa waaj waaye képp déggu sa tuur rek jàppal ni xam nga maa ngi jégalu ndax ñëpp. mën mën na lim xam nga di leen sant yéen ñëpp xam leen ñaanal jàmm yaa defal leen jàmm. di woo Kajoor gépp ñu jàppale waaw di woo Kajoor gépp Kajoor gépp laay woo pour ñu jàppale man doomu mm-hmm. Kajoor laa. seen man Kajoor sël man Kajoor rek man kajoor rek ma ñor lépp man lépp luy lépp luy man si laa nekk ndax waa kajoor dañoo jox ma dem ba ëllëg sax ñu tëgg ay mbapat fii wala ñu organiser moo di làmb ay combat fii tournoi fii ci commune bi. mbapat fii yëpp daan naa leen. maanaam pour mu gën a am ñu gën a xam ne kajoor mm, làmb bi nga fiy dekkiwaat. waaw comme dekkalaat làmb ji quoi di organiser ay mbapat lu mel ni événement soit que ñu def ay tournoi jóge ci département bi pourquoi pas. waaw instant yi moom mën naa ni PKS moom képp kuy dëgg PKS doon ne la saa PKS nga la xam naa ko. Hmm. ndax man wax dëgg yàlla PKS laay bëggeel. Hmm. surtout jeunesse bon jeunesse bi man mbëru mbëru kii la mbëru jeunesse bi laa. parce hmm. que sëñ Fall ku may bëri jeunesse bi yëpp dañuy daw si. loolu lépp mbiri mbiri suñu boroom la oto rek la ñuy jooy bilaa oto yi ñàkk a mat du oto yi doon mat nga gis lu gara esaan maanaam booy dem daal combat bi am oto yu doy waaw du amee oto bilaay même booy ne Dakar sax maa ngi leen di gërëm ndax booy yooyu dañuy wàcc esaan du may bëree waaw booy dëkk Pekes dañuy wàcc esaan mm-hmm. booy dëkk Kajoor leen gërëm bu baax a baax leen fi ngeen ko teg foofu la nit ki da gëm sa doomu réew mm-hmm. barke sëñ faalo